mbokki Leewtoo TV bëgg nañ leen ziar leen tey nag ñu ngi monument de la renaissance monument bu mag bi wala monument africain sax la ñuy wax li ñu fi indi nag Baye Ndiaye borom Albourakh Events moo tëgg combat bu mag pour le 13 juillet diggante Boy Niang bi nga xam ne nii dafa la jël licc waa Guédiawaye Boy Niang numéro 2 bu dégol rakku Eumeu Sène doomu ndoyu Ama Baldé loolu la waa Pikine wax wala noonu mu koy séq ak Lac de Guiers numéro la jatu ki nga xam ne nii mooy mbër mi gën a jafee daan ci làmb kii ki nga xam ne mooy Lac nag nee na Boy Niang da ngay arrêté dama lay génne géejawaay Boy Niang ne ko damay des waay man nag fi ma taxaw daa mel bi ma ñëwee am na mbër ma njëkk a gis kee oto bii weex bii Talla Ndiaye gars yi taxaw nii defe naa Boy Niang a ci ne loo ci mën a dégg doo def nii doo ne diis waa kii kan la Talla Ndiaye grand ngi nii <laughs> ah Talla Ndiaye. tey rek nii borom grand bu ñetti morceau la lay may. teg cay lu ne tam jox la koppati bu soon xaaral ma wàcc ba mu neex gis nga. yi weeru nante la guddi lay génn yi weer. waaw nga kii <laughs> waaye kenn du père buur père bëgg naa la. fay naa la. ci loo ne. sant nañu yàlla bu baax. am na la ma waxoon Léopold Senghor daaw nga ko wax. waaw. daa mel ni ba tey yaa nga ca loola wala wala nga fàttali ma sax li nga waxoon. waaw li ma waxoon xam nga boo ñaa toujours buñ ko yónnee hmm. dañ koy wax ne ko na dem am lu mu wuti. Hmm. ñëw indi indi li mu liñ ko santoon ñu boole ko ñun li ñu yor euh, mu dem bëri léegi nag ñetti étape la woon benn étape bi Japon la woon bi France la woon bi ci des Sénégal xam naa ni yéen ñi nga xam ne yéen yor réseaux sociaux yi kenn ku nekk am na loo loo yor comme document li si des nag làmb ja la yar teggin ak lire sa leçon moo ñu fa yóbbu ak lire sa leçon moo ñu fay yóbbu bu boobaa nag li ñuy wax Pikine yëpp lañu ñuy wax bëgguñu kenn ku koy seetaan tere ah. dañu bëgg bu surtout Cheikh Yérim bi ñëwee ah. ambiance làmb ji ah. bëre làmb ja daan làmb ja ñu dellu si kontaan ci rek moom xalaatam la waxe loolu waxul dina am mais dafa am fenn mu juumee ku mu juumee moo ñun dina ñëw duma ko ñaa daan ko foofu duma day xeex la ngay ànd dañ ciy dañ koy jàpp bëre ko duma ko daan ko foofu la juumee moom foofu la moom est-ce que loolu dina yombe noonu non yomb mooy la maanaam yomb comme duma daan non loolu lay am ah. soo loolu am incha allah rabi yàlla nga fekk jàmm ak salaam. gaaw wala yéex bëre bi ndax yow yaay entraîneur bi. lu mu mën a mooy dinañ yëkkat suñu loxo ñibbi bu soobee yàlla. ak lu mën a xew daal lu mu dinañ yëkkat loxo ñibbi bu soobee yaa wax lii

mbokk yi seetaan la 2STV dañuy ànd ak yéen Boy Niang taxaw ñu seetaanandoo lii nga xamante ne nii moom lañ koy wan waaye laataa ñu ko ko koy laaj rek te réponse rek lañ ci soxla ki ngay bëreel xam nga ko xaw ma ko combat bi ma ko jëlee ba léegi musuma ko teg ba c'est la première fois ma teg ko ba. loolu wóor na. sabar waaw wóor man ñi ma bëreel ñëpp du ma leen gis laa ma jëlee di gisee. Ah. waaw kii naa wóor naa wóoru moom du ma bëri combat buy nii. noo ah liggéey rek na liggéey te xam ne ki muy dajal champion la rek. wóyul xam nga ko xaw ma ko leen. li nga xamoo ko. ma ko xam sax. ah may ko ci gémé. noo ko gisee moom. waaw champion la. loo wax ci combat bi. waaw di ñaan yàlla yàlla may ma ndam rek. ci kawam da ngay xeex ak moom lu mu laaj ma def damay xeex damay bëri. ci ñemewul xeex ak man Modou Mbaye. lu tax. Talla Gana kii mooy Gana Diop yaa dégg ba mu teg affaire eh. seet na de lii xool ya neex lii nu mu tudd Gana ginnaaw mu nuyoo. waaw lii mooy rek waaw. waaw waaw waaw yoon foofu waaw wala nga xaar tamit si ñoom Gana Garagne. Talla Ndiaye na la wax waaw waaw ngéwél gaa ngi nii ndeysaan ngéwél gi ñëw ba ngi nii ndeysaan. Gana Garagne waaw waaw ayoon fàtte bu wala nga xaar tamit si Gana Garagne eh waay. may ma ko rek da lay siif. moo dugg di waaw ok mais dama la wax def bi nga waxee. Serigne Touba moo sa maam ba mu defoon dafa sàmm mu ko ah dama demal sagari ma defal loolu moo gën. parce que Cheikh Fall waaw oh, nañ woo gars yi d'abord waaw ok alaaj nga ma gis benn ko am ñu mel ñu am Ablaye Diop ñoom Angèle Fall di ñoom di Ablaye Dour ak Ablaye Dour Das Adama Dour di am ñu mel maire Makumba ah ku mel ni Matar Diop au conseil gars yooyu yëpp koo am doo nekk fii di xaaraani waaye dama la wax doo xaaraani eh, di di woo monsieur Touré di di woo Adama Dour monsieur Touré sa patron directeur de minute damay sa faal ma ñoo ñëpp maa leen di gërëm di leen sant parce que ñu ma jàppal noonu di di di nuyu ah di nuyu Waly Albert Waly Albert Ndong di nuyu Suba Badiane di nuyu ñëpp fàttewuma kenn di nuyu Abdoulaye Abdoulaye Abdoulaye kenn waa café gi parce que gars yooyu nag il faut nga woo di woo il faut nga woo gars yooyu ndax gars yooyu la doon dem ci ginnaaw dama jël lamb ci barke démb ah. sama sama seera bele Abdoulaye Diop am lu ma jox ma sedd gars yi sedd gars yi ba xëy dem école ñib si aw ma crédit ay waay ma koy bippe mu ne ma loo may bippe ma ne ko daaw nga dolli ma rek mu ne aara mënoo fay soxla nit ñi de ah. parce que nit ñoo lay jox te il faut nga mosal leen nit li ngay liggéey mënoo ko moom yow kese ku ne da nga koy coppalal rek te loolu maa ngi dund maa la wax mais léegi ñoom Alboury gaa yëpp ñoom fii wax di nuyu sama père yi ñoom samay papa lañ di nuyu Boy Niang di nuyu Lac fi toog yëpp ah maa ngi bëggee ñëpp Boy Baldé maa ngi lay nuyu waaw maa ngi fay Modou Mbaye maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di ñaanal gudd fa ak wér di wax ngeen ñaan nag suba yàlla may ñu ndam Sénégal yàlla may ñu ndam wax leen loolu wax leen loolu gaay di gërëm ñi fi nekk ñëpp di gërëm yi di gërëm ci père yi maa ngi bëgg ñëpp di ziar ñëpp maa ngi nuyu waa Casamance bu baax di nuyu waa Kolda waa Djolof Kolon waa Stade maa ngi nuyu waa sama waa staff di nuyu waa marché Zingo nuyu waa Pikine di nuyu suñu waa équipe Ramadan di nuyu sama Moussa maire Abdoulaye Lo Ponto Sarr Cheikh Ndiaye Teranga Omar Balde Birame Fall di bëggee ñëpp di siyaar ñëpp di woo Mansour Sarr baax ci combat bi di woo Pam Ndour di woo waa Kër Moussa ak waa Sébikotane maa ngi woo ñëpp. Baye Ndiaye de xaw ma promoteur bu mag a mag la xaw ma waaye mi ngi bëgg a gën a xam làmb ndax combat bi. promoteur yu bari bëggoon nañ ko ci saison bi su ma juumul waxtaanoon nañ ci Moussa Balla Gaye xam nga booy balde booy Baldé waa si xam naa ko bu baax. loo xam ci moom. non champion la. Mhm. parce que man damay sawar sax di bëreeg sang yi quoi. da koy gis bu dikkee day bëggal boppam. bëre man ku ma xam xam ne sama làmb damay ñëw bëre mu jeex. Mhm. nekkuma fi di sàmm yaa ne gaañ quoi di léewtoo jëmale ginnaaw suba. Mhm. damay ñëw bëre ay xale lañ dañuy bëre. waaye sant nag xam nga sëñ Mor Fall maa ngi koy sant bu baax. di ko sant waaw xam nga kii. waaw Mour Mbaye bu baax. sànq maa ngi dégg ci biir wax nga ne pour mu tamit juumul wax dëgg juumul. parce que man damaa nekk ni koo xamante ne kenn xamee ma wax ju bëri. damay ñëw def li may def dem ñibbi. te yaakaar naa seetaan sama combat yu bëri fii su ma gis sama tànk dellu ginnaaw am na wala amul. dëgg la te Moussa Balla Gaye mi champion bu mag daan na fi ne. ma dama la promoteur bi juumul. bu fekkee amateur yi rek la. ñun xam naa duñ ñu la fay yàggal bu taxawee ma ñëw. bu taxawul ma ñëw ay bu taxawee. déggoo ma de bu taxawee man maay dirigé maay bëre maay xeex maay daan su taxawee maay dirigé maay xeex maay bëre maay sa xalaat nga wax dama ne la. loolu dafa leer. déggoo li ma wax de di di di wax. dëgg foo xam buur man dama fi teg sama tànk. dama ko war a weesu man dama bokk ci làmb. billaahi wallaahi dama bokk ci làmb. te après bu ma bëree Boy Baldé ba pare ngay xam ne dama bokk ci la. kii sama mu muy bëree spécial. déggoo ma ne sama premier combat ren mu muy bëree spécial. sama troisième combat ren mu muy bëree spécial. tey jii yàlla boole ñu man moom. yaa ngi dégg. Mm-hmm. kon maa liggéey ba yegg si. affaire yi amul calculé amul wax ji bëri ji nangam sangam ñun ay. fula ku daa la ñu. dee ay liggéey bi liggéey beeg si ay liggéey beeg si ah. Mm. liggéey bañ la bëri bu rek amul fenn combat kii dama ko li ma ko war a defal. dem sama yoon boo xam na xam na sax boole. xam na ko moom xam na bu baax na ñu boole. Moussa booy bañ a xam nga ko. am na ñu boole. xam nga ko. mais wax ñu boole mën a yow bu baax. da ngay wax lan moo a yow. wax baax. xale bu ndaw nga. waaw man petit paa laa moo tax may nekk bëri ay sal ngay ay grand combat. waaw waaw boo leer. dama ne. affaire yi amul négocier dama ñëw jël si li ma soxla déggoo ma de amul triser de. doo am dara. doo xeex doo bëre doo def dara. doomu aadama te xam nañu. man xoolal barke yonent bi laa wax li may wax dama ko gëm. kii war nga sax bëre moom. man de daan naa mbër bu lu ne. duma naa fi mbër mu daw dóor naa fi mbër mu jaaxaar nooju naa fi mbër xattaa bi naa sagam jël bu fi mbër xanaa kay bu tardé moom moo tardé si d'accord jërëjëf dégg nga ma de jërëjëf damaa tardé waaye si moom moo tardé si yow nag laay jéggee dem sama yoon Moussa Moussa yow boo yëgoon di nga tardé feneen ba da ngaa de Moussa déglu ma xam ne nga da ngay relaxé wu Moussa déglu ma da nga da ngay relaxé wu da ngay dellu ginnaaw ma relation rek dama dama dama bëgg nga déglu bu boo ñu yoroo dama bëgg nga déglu bu baax boo yëgoon doo bi da laal sa waay sa sama bi yëpp di ànd ak mbëri ñoom Garga Mbossé ñoom Garga 2 di entraîné Garga di pare combat. loolu yaa ko yàlla ko fermé yow ba ñu laaj ko ñu combat samay combat day am chaque jour may entraîné ba yàlla def ñu woo ma. Moussa Diouf Moussa Diouf. daal jàmm waxal lu la neex ay Moussa Diouf yooyu amul sens. am nga combat de sawaay wax la leen de si musique ko teg am nga combat de ban musique. maa ngi leen di dégg di nuyu sama adversaire Boy Niang di ñaanal Lions yi dañ leen ñaanal surtout Lions yi ah. parce que ah, li may faral di ñu tàbbee xol yi ah, ah. dañ am lu ñu bëgg. dañuy am ñi nga xamante ne ñooy ut yeneen côté yi. waaw waaw ñëpp boole xol yëpp. ci wàll yëpp. na ñëpp boole yëpp ñu ñaanal Sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñooy jamonte. suba incha allah bu neexee yàlla. ñu am ndam yàlla may leen ndam lu rëy rëy ci barke Seydina ñu kenn. waaw di sama adversaire booy. noo noo ko Ah, il est en forme. ah macha allah il est en forme. ah oui. te loo koy wax. non xaw ma lu ma koy wax parce que tamit bon dañu war a bëri ah. lamb la maag moom ñu war ko bëri maag moom. Ah. waaw te xam naa ne daanaan la daanaan bu war a dajeeg daanaan la. Ah. waaw incha allah bu ko jiitu ci lamb ndax dina compter. ndax am na ma ko jiitu ci lamb dina compter. affaire c'est pas question bi li ma ko jiitu ci lamb mooy compter. yaa ngi dégg bu fekkoon li ma ko màggee sax dafa bëri ñu mën a wax li ma ko màggee bëriwul mais nag dinaa wax benn affaire. ah. Boy Niang moom xam na bu baax ku muy dajal <laughs> xam na ku muy dajal. Ah. xam nga man ku may wax ñi ma yeb ñi ñoo ma yeb ñii ñii nii yéen yéen a ma yeb mais buñ duggee ci laabu ñu ma ak moom <laughs> ah na nekk. Boy Niang dégg nga lakk li mu wax léegi bàyyi la ko nuyu réew mi ci des mooy rek le treize. waaw asalaamaaleykum. waaye ñaar la. ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur. di nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Abi. ñu ngi nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Abi. di nuyu waa kër Cheikh wul du maam ni yëpp. di nuyu waa kër Cheikhu Cheikh na Cheikh Sadou bi yëpp. di nuyu waa Pikine bi ma di nuyu ñu may seetaan di nuyu sama fans yi di nuyu plateau bi yëpp. du ko rafet bu baax di nuyu champion yi toog parce que ñun fi la ñu jugee ba ñëw fii maa ngi nuyu champion yëpp di nuy adversaire bi di nuyu waa Pikine ak waa Rebeuss yi ma àndal ñu ñëw supporté ma père comme mu koy waxee rek adversaire bi xam naa ko ñu ngi jëm ci bis soreetul ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu ndam incha a ci barke Cheikh Moussa Haj Bekkay combat bi xeex mënu cee ñàkk. ah. ñaar ñii foog ñu xeex. foog ñu xeex. mënta ñàkk. lan foog ñu xeex. combat bi ah. Bekkay ah, lamb ji kay gars bu ñu fi ñëwee kay ñëpp si lamb ji ngay bëgg mu am xeex bu neex ngay bëgg mu am xeex bu saf-saf bu saf moom xam nga xeex sax fi mu ko sax. booy ñaar. faral. Eh, eh, yéen damaa bëgg ngeen déglu wa bu leen ma fonto. maa ngi jaale sunu papa. on eh, ko seen morom. ayca maa ngi jaale sunu papa. waaw moom faram. maa jaale waaye génne waaye di jaale njabootam yëpp. waaw ñu fekk ci combat tamit sinon dañuy ñëw ba foofu jaale si ko. ñu koy jaale bu baax combat bi dina am xeex dina am bëre. day ci adversaire bi rek. combat bi ñëpp ñu ngi xaar te bu neex la suñu frère tëgg ko muy Baye Ndiaye. bu jour ba yow rek ñoo def flag fan ak job rek maa moom allah. xeex bi dina arrangé baax na ci yow. non man xale laa lépp arrangé moom man moom bu ñu seggee dara bu ma bàyyi. li tax man la ñaar ñi mënuñu bañ a xeex kii nañ ko dàkkantale le puncheur du Waalo ndax xeex bu nga xam ne da koo samp ci làmb ji ba ñëpp ràññee ko ci kii gàttal rek def naa bëri naa ak samay morom bëri ak samay mag samay rakk def naa laa bëri na waaw loolu loolu laa bëgg dooma ci bëri ku la gën a nekk xale. bëri ku la gën a nekk xale. ci benn mu nekk taw bu ko jëkk a bëri rek loolu rek la. mais Mago. ah Mago. waaye. Père Bécaye kii <laughs> kii ku xool jaalam ku xool jaalam kii laa la wax ne. moom fu ñu baax la ko xool jaala nekk ci gémmiñam gi li muy nëb bañ ñu dóor ko ah nga ne kii waaye gars yi rek. Ah, da ko bëgg a yokk. kon jaal bi non jaal bi kenn du ko yokk dañuy daan rek incha bu ne xëy na suñu bëri. booy la dëggeen ba muy nekk ci làmb ba ñu xam ko ñu naan la dëggeen numéro 2 su ma fàttalikoo boobu ñu ma fekk man lii na caaro yi maa ngi jàng. waaw kon moo ma mag ci làmb moo ma jiitu loolu mu nangu ko ak mu bañ ko ñëpp xam nañ ni moomu ma mag ci làmb moo ma jiitu waaye nag dañoo nekk ay xale liggéey def fulla ak fayda ak jom ba mu egg ci moom te ci loolu la ñuy continuer dama koy wax chaque jour te loolu sama ambition personnelle la làmb moo ñu boole ñu war a bëre waaye yàlla xam na ni sama ambition personnelle du pour kii bilaa walaay ren ba pare nga ne sa ambition du loolu mooy la ba nag eh eh eh eh gis nga booy eh eh eh waaye jàpp leen ci waay ayca booy bi père waaw mën na daan ñëpp mën na daan ñëpp mais li ma lay wax sama ambition personnelle la ah. xamaguñ dara ci làmb ay tout tànk lañu waaye suñu ambition personnelle du pour Lac de Guiers. mais moom la ay bagages boppam la mais man laa la wax sama ambition personnelle du fan nga nekk ci kàttanu yàlla yow doon yëg yow ba jour ba incha allah bu ba di nga xam ba damay dem wala du ma dem incha allah ci kàttanu yàlla ñu la mel. ok ba jour ba am nga ko mais est-ce que am nga conscience que ne adversaire bu technique adversaire bu tactique adversaire bu naqaree bëreel ngay bëreel. waaw benn tam noonu kii dama ko yàgg sax du léegi laa ko sànni déggu lu ma ne la premier combat ba dernier combat parce que Serigne Babacar sax am naa nu muy bëri un peu de respect waaye un peu de respect nañ leen bàyyi yi un peu de respect. maa ngi jégalu. ci yow am na qualité yu mu la mën a jégee dem yoonam comme ni ko père Bécaye waxee. mbër bu nekk bu jële sa avance rek am na qualité bu mu la daanee. mais déggoon ma la bu mu mënti am damay dajale lépp fàtt ko kii du am dara ci kàttanu yàlla. booy ñëw du am dara. booy ñëw adversaire bu nekk am nga ko. mais adversaire bu gën a naqaree bëree ci làmb ji ñëpp nee nañu moom nga am parce que amagul mbër bu ko daan ba ci kaw est-ce que conscient nga ci loolu tamit. dafa def dama ko gis ci combat bi man dama nekk xale waaye dama bëgg dama bëgg combat yoo xam ne dañuy wax Boy Niang mënul def lii wala Boy Niang mënalul kii dara wala Boy Niang ki muy bëreel moo gën a nakkaree bëreel wala Boy Niang am na client dama bëgg loolu ci combat parce que day tax ma liggéey def fu laa fayda jot te foofu laa jóge ba egg fii nii te loolu dama ko dégg ci combat bi dégg naa yaa ngi dégg bàyyi gaa yi tëgg mais il faut ñu tëgloonte dégg nga bàyyi gaa yi ñu tëgg garaaw yaa ngi dégg. ok yaa ngi dégg. ay ay. affaire bi du concours tëgg waaye. ay ay ñu waxtaan tuuti. kàlla géwél géwél. mais béykat yi géwél yëpp lañ faral dañuy génn. géwél yi daaw yàq géwél moo daan defar te démb ba tey géwél lay defar bu leen yàq. ayca da ngay dégg fekk. waaw booy fi nga nekkoon neex na lool. waaw man man waxtaan bi waaw. damaa bëgg ci biir loo xamante ni dafa tax ñu ne Boy Niang mënul lii wala Boy Niang xanaa dafa dof lu muy wut ci lii loolu day tax ma liggéey def fulaak fayda ak jom boo xoolee sama combat yëpp. noonu ne demee ba ma yegg ci fii kii nag adversaire la damaa dégg ñu ne kenn daanagu ko maa ngi nuyu mag amal seen daan na ko mais nee na daanaguñ ko jëlee wu leer. donc ma seen daan na ko. daan na ko champion maa ngi koy nuyu mag mais damaa bëgg incha allah le 13 man ak moom bu ñu bëree ba pare ñu xam ni boo ñaar champion dëgg la incha allah vraiment. loolu daal nga bëgg a def biir géej incha allah. est ni nga daal liggéeyee ci yeneen combat yi nga liggéeyee. wala bii dafa am une préparation assez spécifique ndax dayoo bi combat bi am ci yow. su ma la naxul su ma la waxee dëgg yàlla xam na ni li ma liggéeyee ci bis bi mosuma ko liggéey su ma la waxee dëgg incha parce que loolu nag bëgg bis bi rek moo ko waral xam nga wax ji dafa neex supporters yi foofu ñu wax. waaye dafa neex la fekk bis bi kii rek ñooy ne ci géew incha allah. ñu ne ñu ne pourquoi Japon. waaw non Japon dañoo bëggoon xool ni rek ay xale lañu boo déggee xale da nga dem xooli rek yokk sa expérience ay xale la ñuy demoon yokk suñu expérience mais liggéey bi def nañ ko ñëw yeggali fi mu toll nii wax amatul daal dañ def fulaak fayda ak jom parce que ñëpp ñu déglu incha boo ñëwee dama dégg nga ni da nga yor sa booli fondé waa ku ñëw di ko yàqal te bi day dem kër Lac de Guiers. non tey waxuma loolu waxuma loolu. loo wax si waa Géejawaay. Géejawaay amul lu may wax si ñoom. laa bëgg moom boole ak ñoom comme li may wax. ñu ma changé communication ci loolu ndax moom moo ma boole ak ñoom samay adversaire nekk foofu ñu ñëpp ay frère lañ ñoo bokk ndey ak baay su ma bëree ñoom ba pare jeex na comme ni ma koy waxee bu jeexee jeex na ndax moom moo ñu boole man ak lan dëggeen wóor dëgg ñu bëree def fulla ak ak jom bu jeexee ñu dem xool leneen mais géej waa am benn problème ak ñoom. alors Lac de Guiers est-ce que am na aussi préparation bu spécifique boo def jëmale ko ci combat bi ndax Boy Niang mu dangereux ci waaw xam nga lamb ak mbër a la combat bii bokk na ci combat bi ma gën a foog combat bii nii bokk na ci combat bi ma gën a foog lu ko waral parce que loolu duñ ko mën a wax fii mais après combat dinaa la wax lan loo xamante ne damaa fonk combat bi. Euh, euh, Père ci li nga xam bu neexee yàlla. mais dama ci liggéey man. man a. xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw bi dama ko préparé ay coach wër ma entraînement ci plan ci entraîné ba feebar. waaye am na loo xamante ne dañ ko wax mu jëm kaw. mais gis nga combat bii nii ku yaakaar ne dama ci nelaw benn centimètre benn centimètre wala moom dafa yaakaar dinaa ko ca may benn ndaw mu ngi nax ko combat bii laa gën a fonk laa wax sama carrière waaw combat yi nga am yëpp déggul ma combat yi ma am yëpp combat bii laa gën a fonk da bëgg ay nitam xam loolu ne combat bi dama ko jël au cœur ñoom yàlla ñu koy xam man maa ko war a xam ah, samay nit war nañu koo xam man maa ko war a xam man ngay bëreel Père Bécaye yaa ngi may dégg gars bi ci la dégg combat bi sama bakkan laa teg combat bi sama combat entraîné naa ma sonn yal naa ay potu làmp ak lépp mais bi du loolu dafa war def ñu bëre xeex incha allahu rabi ñu ñaan suñu ñu ndam ci bàtt seen seen sàmm incha allah. alors yéen ñaar dañ leen di xaar ci que ñu bëri. làmb ji bëri na de. waaw bëri na ah, ñu bëri dañuy wax ne la de dafa défensif Boy Niang dafa tactique ñu bëri xalaat ni combat bi day bëri ay dam yeeg ay yoon est-ce que tey explosivité bi ñu yaakaar dinañ ko gis ci yéen wala boo calcul boobu la fi nit ñi di toog ngeen di benn benn di dam yee ku la di xaar sa borom nax la combat ci jour boobu est-ce que mën ngeen di promettre loolu bi bari xeex neex bu nekk li nga wax ci signature bi boo ñëwee nga def offensive ay ca waaw mooy yoon sax parce que boo xoolee ci signature bi ak communication bi da ngay gis ni Lac de Guiers dafa guuxal Boy Niang da ngay gis ni Boy Niang dafa guuxal Lac de kon ci jour ba moom dañ mu nekk ci ginnaawam par rapport ak yu ma seetaan gis naa ne ñëpp ñu ngi ci ginnaawam xanaa ñu ko ëmb nag jour ba muy ñëw di def gauche dafa war a ñëw rek ñu dëggal suñu bopp def flag file incha allah. ngeen daje. incha allah lan lay tontu di ay technicien ñu xool ko doog a si waat réalisateur. booy ñaan joxoñ na ko loxo càmmoñ. garaañ technicien yu àddu jëmale si combat bi ñu déglu leen ñu wax ngeen wax. encore gis-gis bi ñu am ba indi combat la boo xam ne dafa am lu bëri lu war a traité fii la boo xam ne dafa am lu bëri fu ñu war a parce que gars yi na ne yéen ñaar yéen a dàq calculé ci mais dañoo war a bëre de dañoo war a bëre xeex loolu mooy yoon moom la gaa yëpp di xaar yu bëre xeex parce que gars yi ñu lañuy xaar bi ñëpp dañ koy xaar la sama ginnaaw ak sumaay mbokk damay ñëw def flag flag incha allah nag nga baat bu mujj waaw dégg naa ko dégg naa ko bu baax a baax ah. waaw combat bi dina neex bi gars yi bu ah. leer la combat bi combat neex te kenn du déggoo lu ma la wax combat bu neex lay doon. combat bu bu neex lay moom xam na loolu. waaw combat bu neex lay doon. Uh-huh. waaw kon yaakaar naa ne mbokk yi drapeau maire Guédiawaye Aliou Sall Boy Niang ak Lac de Guiers numéro 2 koo bëre Baye Ndiaye. Penda Ka. waaw xam kaddu bu bëgg a jàllale ko. waaw ayca. mooy dafa am monument boo xamante ni dafa jóge biir géej waay. waaw muy suñ papa ma Fadal. waaw koy jaale waa këram bu baax a baax baax. parce que xam nga lan moo tax. Euh, dem naa fa. waaw jaale naa. parce que dafa nekk koo xamante ne monument la woon ci lamb. waaw monument la woon biir géej di ko ñaanal waa këram képp koo xamante ne yaa ngi ñaanal Lac de bu numéro 2 muy waa Tivaouane di waa Touba di waa Kaolack. di shérif yi ak ku mënta doon ah njaasaan laayee ni bàyyiwuma kenn képp kuy ñaan rek dama ñaanal ñaan ñii muy sama yaay ma sukk jur ak sama bopp Umar Fadam ak bépp mboolem jullit bi nga xamante ne mu fa tëdd maa ngi leen di jaale baax baax di ko jaale waa géej waay yëpp ak axlu làmb waaw yal na leen yàlla xare àjjana amin amin amin amin ci barke yonent bi alaaji Malick yaakaar naa ne bis la boo xamante ni bisu le treize la di drapeau Aliou Sall Alburax di frère moom Baye tudde ko ko mu doon bis boo xam ne bisu làmb la bisu banlieue la tamit ndaxte banlieue bi lañ koy bëri ñu koy bëri ñëpp ci banlieue bi lañ dëkk te wane nañ ci fulla wane nañ ci fay kàddu gi nga xam ne moom nga leen mujjee wax lan lay doon ci bisu tey kàddu gi rek dama leen di ñaanal ñoom ñaar ñëpp yàlla may leen wér yàlla may leen tal yàlla may leen fekkee kenn ku ci nekk nekk à 100 pour cent voire à 200 pour cent de ses moyens. naan allah xaliful chérifol mun ba Casamance Ziguinchor ante ber mbalɗano alien so duwaɗa ñon combat kono par ce que mamma moɗon soto yi mbandin gorti ngalde labbu soto mbi ngalde soto sama joolal joolaye ɓay nunkayi leɓuyi séréer leɓuyi sama côté yaay séeréer yi képp koo xamante ne séréer maa ngi lay sàkku ñaan ci combat bii nii képp koo xamante ne deretu séeréer mu ngi daw sa yaram maa ngi lay ñaan nga ñaanal ma ndax sama barke yaay ci barke Seydina Muhammad maa ngi wax nag waa géej waay bàyyi ma kenn autorité yëpp. Eh, eh, Alioune Sall Alioune Sall maire Alioune Sall sama dons sama xarit maa ngi koy ñaan mu jàpp ci combat bi di ñaan Malick Gakou. na jàpp ci combat bi ay na saw caawara sama tata sama lépp na jàpp ci combat bi bu kaasali maa ngi koy woo ci combat bi racine ba maa ngi koy woo ci ñu ngi sant waa kër Cheikh na Cheikh bu baax di sant waa kër Cheikh na Walo Mali di sant waa Casamance bu baax di leen nuyu di leen wax di gën a taxawaay waa Badiane sama maman Nene ak sama yaay booy jaata maa ngi ñaan waa Badiar yëpp ñu ñaanal ma ci barke benn koloma maa ngi nuyu Cheikh Ousseynou Seetaan bi yëpp waa kër Cheikh yi dund maam Seck sama maam waa kër Cheikh da Jalaw Seck waa kër Ba maa leen nuyu baax waa kër Cheikh maa leen nuyu baax waa kër Cheikh na wuldu maam bu baax a baax di nuyu fu ma jógee muy waa Pikine di nuyu ñëpp di bëggee ñëpp leen wax seen doom am na combat ñu jàpp ci suñu borom defal ñu bu baax a baax di nuyu sama dëkk waa Sambé leen wax ne gis taxawaay bi ak ñaan ñu yokk bu baax suñu boom defal ñu ndam waa ñoo jool joof yoor Koudia Dieng maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama papa Siré Dia di ko wax ni mu ñëw jàpp ci combat bu baax ñu ngi koy nuyu ak jabaram maman Fama di nuy nuyu Ablaye Timbo son père di nuyu Thierno Ndomba suñu gannaaw suñu lépp nekk Pikine nekk bu baax ñu ngi koy nuyu bu baax ak famille bépp di nuyu Itaaka Diop maire ñu ngi koy nuyu bu baax mi ngi ci taxawaay bi jara ñu koy nuyu monsieur le nuyu Moustapha Mbengue monsieur le maire Kër di nuyu Pape Gorgui Ndong suñu gan suñu grand suñu lépp di ko mu jàpp ci combat bi. di nuyu Moustapha Diop maire Ngoyokho di nuyu Ifra sama copain dëkk Malika jàpp na ci bu baax di nuyu Mas Mas Koki Mas Koki sama la. yaay mbëre. père maa nuyu waa Tivaouane bu baax. waa Tivaouane maa leen nuyu bu baax a baax a baax. jërëjëf maa leen nuyu di leen gërëm.